man di jot vidéo yu am solo yi bàyyi ci HDP religion da ngay bés fii ñu wax sabone boo noppee ñu ci kolos bi bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin al yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa leen nuyoo di leen sant leen gërëm ci déglu bi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 bi ñu waxee loolu ñu bare bari ànd ak ñoom ci loolu ñu dal di jaay marchandise moom mi àndoon euh, jëgg bi andi woon mu doon junniy gileem ak alal joo xam ne war naa mat juróom fukki junniy dinaar ne ñu ko waxee woon ci loolu yi moo waral aya alquran wàcc ni inna alladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah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 ginnaaw dafa waxoon ne nañ xaree fii ci biir Madina xalaat ba mu joxewoon loolu yi lañ waroon def bi ko ñenn nit waxee ñu daal di dajaloo dem ci yonante bi ni ko dañoo bëgg la nga xalaatoon nga def ko ñu topp ci sa ginnaaw léegi ñu toog biir Madina yonante bi ni leen yëllul ci ab yonant ginnaaw bu mu solee mbubbum koŋam ngir xare ji mu di ko summiwaat te yàlla attewul digganteem ak i noonu ni leen bu ngeen góor góorlu te jéem a muñ te jéem a wéyal xam ne xas na jóg xas na taxaw ni leen nak li ma leen dénk ak ragal yàlla ak muñ bu ngeen dajé ak seeni non te deglu li len seen borom di digal te def ko nu yonente bi dal di sédalé arme bi def ko ñetti quartier muy quartier ñi ñi yi te moy wa makka drapeau bi jox ko ka wax Musab ibnu Umayr benen quartier bi moy quartier giruk aus. drapeau bi ñu jox ko ku ñuy wax Usayd ibnu Hubayr beneen quartier ba mooy quartier waa Xasraj ka yoroon ba mooy al Hubbaab ibnu al Munzir bi yonent bi moom mu ngi toll woon ci junni nit biñ doxee ba jéggi mbedd dama ñuy wax sànniyatul wadaa mu gis benn quartier gu rafet goo xamante ni wàccaay wu jëkk lañ wàcc wéet ànduñ ci ñetti arme yi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 ñam ci gis ñu doon ay gone yu mu jàpp ni duñ mën a xare ji ma dëpp leen bokk na ci ñam dëppoon Abdullah ibnu Omar Usaamatu ibnu Zayd ak Usayd ibnu Bahir Zayd ibnu Saabit Zayd ibnu Arqam ak Iraaba ibnu Aws ak Amr ibnu Abu Saïd al ak Zayd ibnu Xaarisa al Ansari ñëpp dañoo ndawee ci moom ba tax mu dëpp leen ngir ñu mën ngeen dëpp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 bi mu defee loolu nag léegi samura daal ni man raafi am yi maa ko ëpp loolu lu tax ñu di ko bàyyi te bay wuñu ñu ko waxee yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi ne ko ko ëpp loolu ko nee bu bëree moom moo koy daan yonente bi woo leen ba ñëw ci kanam mu leen bëri leen ma gis bi ñu bëree samura daan ko mu daan di jox ndigal samura ibnu jundub ne ko kon yéen ñaar ñëpp man ngeen a dem xam noonu leen joxe ndigal ci dem xare ji yonent bi sallallahu alayhi génn ngir daje ji ak yéefar yi ànd ak junni ci ay nit waaye bi mu demee ba ci yoon wi ka ñuy wax Abdullahi ibnu Ubay mi ji doonoon njiitul naafiq yi dafa dëpp ànd ak lu mat ñetti téeméer nit ci ñi bokk ak moom jikko naafiq lañ woon dañoo leerutoon rek jullit yi wax ak ñoom ni leen tengeen ñëw xeex ak yéefar yi ànd ak ñun ñu ne ñun buñ xamoon ni da ngeen di xeex duñ dëpp waaye nag xamuñ lu ngeen xamuñ lu xam ne boobu daal ak kéefare gën a jege ci seen xol ak ngëm li ko alquran waxe ni wa qila lahum taalaw qaatilu fi sabilillahi aw idfa'u qaalu law na'lamu qitaalan lattaba'naakum daal ni hum lil kufri yawma idin aqrab minhum lil iman mu ni booba ak kéefar la ñu gën a jege ci ak ngëm yaquluna bi afwaahihim ma laysa fi qulubihim jamono bu ne dañuy wax ci seeni gémmiñ lu nekkul ci seeni xol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 fexel ba bu bu bu kenn bàyyi ko ci sa wet daldi waxit ñi nga xamni ñu yor fett yi and ak mom ñu len aral len suñu ginnaaw bu ngeen gisse ñu dinu ray bu len ñu dimbulé bu ngeen gisse ñu amum kom ñu gañ ñun ba amum kom yëpp bu len bokku sel ñun kom mom riwaya bukhari ñana dafa wax ni bu ngeen gisse ñu dem ba ay picc dinu fekk sax bu len bu len ñu fekk si te du yabal ndaw ci yeen ngeen ñu bu ngeen gisse ñu gañ ba dëgg ci seeni looset bu leen jóge fii ngeen nekk te duma yeble ci kon loolu mooy li yonante bi dénkoon ñi yoroon fett yi mu teg leen ci kaw daj bi ñu ñuy aaj julli ci gannaaw léegi mu def ci wetuk ndijooru arme bi ku ñuy wax al munzir ibnu amr wetuk càmmoñ ga mu teg fa ku ñuy wax al zubayr ibnu al awaam miqdaad ibnu aswad di ko jàppale léegi zubayr ibnu awaam li doon liggéey mooy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 daal di génnee bande bu xonq boobu daal ci bande bopp bi te bande bi ñu ngi ko daan wooyee bande dee ndax saa bu ko mësaan bande rek dana def lu rëy rëy ci xare xare bi muy waaj a dugg di tàmbale nag di daagu daagu mel ni kuy tiitaru ci diggante ñaari armo yi bi ko yant bi xoolee muy doxee mu ne doxin wi yàlla bañ na ko fépp ba mu des ci bi béréb bi rek la ko bañut noonu la yonente bi waajale ab arme léegi ñi nga xamante ne ñooy waa màkk yi waajal seen arme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 maanaam ñi doon seti xose yi dañoo séddale cër yi ñenn ñu ne ñu féetale leen ci dara léegi ba nii di daar ñoom lañ féetale woon wàllu uh, ñuy gàddu drapeau bi noonu mu doon loo xam ne kenn daw ko xëccoo ak ñoom ngir bëgg a tënku ci seen aada yi donante ci seen i moom waaye Abu Sufyaan mi nga xam ne nag moo jiite arme bi waxtaan ak ñoom waar leen ni leen na xam ne nag yéen ñi yor drapo bi yéen ko yoroon ca xare Badar ba tax ñu gañal ndax ka ko yoroon sax dañ koo jàpp dañ koo jàppaale muy an nasr ibnul xaaris dañ ko jàppoon ci xare badar mu wax leen loolu ngir bëgg a jàqi bëgg seen nar ak bëgg ñu puusu ci njàmbaar rek mu leen bésu badar yéen lañ joxoon drapeau bi lanu daal dal te xare bu mu mën a doon la leen di daal seen ñi yor drapeau bi lay bàyyi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 léegi nag ci biir loolu armab Qurayshin am nañ mbooloom jigéen moo xamante ni ka leen jiite mooy Hind bintu Utba te doon euh, soxna si Abi ñoom dañ doon wëndeelu ci biir sàpp yi di soññ góor ñi di tëgg ay ndënd di tari ay bayit di wax ne in tuqbilu nuaaniq wa nafrashu namaariq aw tudbiru nufaariq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 Eh, te ci ñi gënoon a jàmbaare ci Xuraysh ci la bokk ba jullit yi sax dañ ko daan wooyee capsule katiba mooy kuyum arme bi kooku moo gën war ci ak gileem di woote lewto bi mu wootee lewto ñu bare bari arrière ngir njàmbaare gu ëpp bu ñu xam ci moom ñu bari ñu ñu avancé waaye Zubayr moo ñëw te mayu ko fu mu yekk ak nakam dafa ñëw mel ni gaynde mel gaynde ci kaw ndax dafa wadd ba tong ci kaw gileem andak ak moom daanu ci suuf dal di jël jariñ ñor ndand ñu ko gis yenn yenn sansan di kabar ci kaw allahu akbar jël jep kabar ngir ndabar gogu ci euh, Zubair feñal ci digganteem ak ko gi nga xamni ñepp dañu amon ci mom ak rek ba yonente bi ni inna li kulli nabiyyin hawariyan wa hawari az Zubair. Yang dama day amna ab hawari wa man day sama Hawari mo Zubair. zubayr kon tagg bis bobu la ko yonente bi sansan jox léegi bi kooku abo shayba de Ousmane ibnu Abi Talha daal di ñëw jël drapeau bi bi ko jëlee Hamza ibnu Abdul Muttalib jóg dal ci kawam ray ko bu loolu jàllee Abu sa'id ibnu Abi Talha jóg daal di jël drapeau bi Saad ibnu Abi Waqaas fett ko mu dee ñu wax Musaafi ibnu Talha ibnu Abi Talha jóg Aasim ibnu sabit sànni ko ak fett ray ko noonu lañ tegaloo ci ibnu Talha ñëw jël drapeau bi ñu ray ko Jallaas ibnu Talha jóg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 di xeex bañ ray ko drapeau bi dal di rot li drapeau bi rotee ci suuf nag kenn yoratu ko noonu la drapeau bi continuer daanu léegi nag arme bu jullit yi ak yéefar yi daal di tampaloo nag xeex-xeex bu tar ñi ca gën a feeñ ca xeex ba mooy ka ñuy wax Abu Dujaana ak Hamza ibnu Abdul Mutalib ñu feeñ nañ ci lool feeñal nañ ci ak njàmbaar waaye fekk Hamza am na benn jaam bu dëkk Éthiopie bu ñuy wax wax siiyu bu mënoon a fet néew na mu fet di ci mooy ci li muy fet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 mom itam non la xeexee ba ñu rey ko biñ ko rayé yonenté bi jox drapeau bi Ali ibn Abi Talib légui yefa yi dañ ñëw doole di ak si waye sa bu ñëwé ñambaaré gi jullit yi doon doxé day tax dañuy arriéraat biñ démé ci lool nak ab dir ñi nga xamanteni ñoo doon doxit tampalo ba xex bi tang ba tang wenn waxtu la am yéefar yi daal di yëg ak ñàkk kàttan akuk doyadi dal di wëlbati ko daw niñ dawee jigéen ñaa ngi leen top di yoxu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 wàcc nañu eh, ci am pexeem la gaawee wër leen ndomb dikkee leen ci gannaaw ba leen dikkee ci gannaaw eh, daal di rey mboolem ña desoon ci kaw doj wa daal di wàcc topp ci gannaaw jullit yi di rey rey gu métte métte jullit yi nag bi ñu gisee loolu yi dañoo daal di gëlëm bi ñu gëlëmee nag loolu moo tasaare sàpp yi dañu tasaare sàpp yi mel ni pexe amatul ñenn ñi daw dem Madina ñenn ñi daw dem làqutu ji ca suuf ndaj wa yonent mi ngi woote ci kaw di wax ni ilayya ibadallah ilayya ibadallah jaami yàlla yi jëm si leen nii jëm si leen nii mu mel ni foofu feeñal na fi ak jàmbaar ndax mi ngi woote ci kaw te wóor na ko ne jullit yee muy woo bala ñoo dégg kàddoom yéefari dañu dégg kàddoom te danañ ko xàmme te it noonu la demee ndax yéefari dañu dégg kàddoom daal di daw wuti ko ngir fas yéene rey waaye ci biir loolu mbooloom jullit daal di daw gaa wër di défendre mbooloom jullit gaa ko wër yonte bi sallam bokk na ci ñafa teew talha ibnu ubaydillah al ansari te ku mënoon a fett la ku juboon ak eh, ak eh, kii la eh, ku juboon ay ak lu muy fett la ñëw na mu dam mu mu moy damm na ñaari xala ba ñetti xala ngir aar yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba yonente bi di di wax yonente bi naa ko bi abi anta wa ummi ya rasulallah jote naa la sama baay jote naa la sama ndey yow yonente bi yàlla bi laa yusibuka sahmun accepte dal mukk naxari doona naxarik sama dënn bi def naa ko mu yées sa dënn bokk na ci ñu ko doon aar Saad bin Abi Waqaas yonent bi di ko wax ne ko irmi Saad fadaaka abi wa ummi yonent bi di wax Saad bin Abi Waqaas naa ko sànnal yow Saad jote naa la sama ndey ak sama baay moom lañ mos a gis ci ku yonent bi jote ñaari way juróom moom Saad bin Abi Waqaas bokk na ci ñu ko doon aar Sahl ibn Hanif ñu gënoon a mën a fett ci la bokkoon moom dafa continuer di fett ba mbooloo mi ni ñu tampale woon ci wetu yonent bi sax mujj na def ab yaatu yaatu am ci ndax mënuñ koo dékku bokk na ci ñi ko doon aar Abu Dujaana al Ansaar yi moom itam dafa def boppam muy ab pakk buy fegal yonent bi sax dafa mujj sax wane gannaaw sëgg ba fet yëpp yi ñëw di dal ci kaw gannaaw ko Ziyaad ibnul Xaaris bokk na ci ñi doon aar yonent bi sax ba fa la bakkanam des Ubay mu xalaf jóge fële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 jigéen ñu wax umma amara bint kaab masniya qatada ibn nu'man hatib ibn abi balta ñëpp ay jambar la ñu wër yonte bi sallallahu alayhi wasallam fas yéene jeexal seen bakkan ci dox diggante yeefari ak yonte bi sallallahu alayhi wasallam di ko ar kaaraange ji metti métti waaye ci biir loolu lépp nag teewut yonente bi jam nañ ko jam jam yu metti metti gañ nañ ko ndax euh, ku ñuy wax hadba ibn abi waqas moko sanni sànni aw doj ba mu ab bañam damm bañu yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye ba ko defee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 بما خلو يلا وتعي بالقران انك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون نكون نعم، مير مي مومو دارا بولين دي جيغل اك بولين دي مبوغل لب تي لو تي لو سما لوخ لا نيك رك خام لي نيو اب يونت نغا دمو لا ديف لو واي نك نيت ني موم سين مبوغل اك سين الله عبد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 di xeex ndax yi fi tàng na ñu war ko te bés booba la leen gënoon ñor mooy faat bakkanu yorante bi sallallahu euh, fett na ba ak fett gam yoroon dam xataada jël ko euh, denc ko xataada moomu bokk na ci ñi aay yonante bi dem na ba ab bëtam euh, ñu jam ko ci mu lang bay bëgg a rot yonante bi jàpp ko ci loxoom delloo bët boobu waaye bi mu ko delloo mooy bët bi gënoon a mën a gis ci ay bëtam ginnaaw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 ibnu ximaa eh, ibnu ximaa dóor ko ci aw loo xam dóor bu metti ba jaasi ji dafa dugg ba xaw a ci biir waaye moom jigéen mu ko ay yu bare bare bare mbubbum koŋ mi mu ibnu ximaa moo ko ko fegal eh, ñaw koy jaasi yooyu ba ummu imaara ginnaaw gi lu mat fukki jam-jam ak ñaar gis nañ ko ci moom bi la ci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 jàqare lañ amoon lépp daal di dañ ngir gis giñ gis yonte bi sallallahu alayhi wasallam te ginnaaw buñ yaakaaree ne faatu ginnaaw buñ leen déclaré ne ñu daal di toog nag di waxtaane nga ñaay lañ jëkkoon a am ak ñu leen faate di tudd ñi nga xam ne dañ leen rey tàmbali waxtaan ci fànn googu far Abu Sufyaan leen tiimoon ci kaw doj bi ñu gëstoo seen Abu Sufyaan la ñu doon wax lépp ñu fàtte seen été yëpp mu ngi jóg défendre seen bopp ngir jàpp nañ ni yëf yi dina dalaat seen kaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax saxaaba yi ni leen yëllut ñi dinu tiim nu tiim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

Eh, mu indil ko njàqare ak eh, mer aku naqar lool mu daal ni waa Xuraysi ndey eh, bu yàlla defee mu mat leen benn yoon danaa metital ci ñoom dinaa de lii ñu def sama baay bu ndaw bii danaa ko def fanweeri nit yi jullit yi bi ñu gisee njàqare yonente bi sallallahu alayhi ak naqara ngoogu mu am ci baayam bu ndaw boobu ñu ni ko bu mu yàlla defee mu mat leen bi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 loolu moo waral sax gannaaw bu aay bi wàccee yonent bi dafa tere ni bu kenn mititalati kenn maanaam bu kenn rayit nit di ci dagg dara loolu dafa daal di aram te mooy loolu moo wax rek dagg bakkan ba mbaa nga dagg dara ci nopp mbaa nga dagg dara ci ay cëram loolu da ko tere a bu aay bi wàccee yonent bi ku xeroon la ci toppatoo saxaaba yi ak di xam seen yi mbir ndax gannaaw bu xare bi jeexee la ni ana ku may xoolal Saad ibn Rabia ndax mi ci ñuy dund la nekk wala ci ña dee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 Euh, day wane rek euh, volontaire guñ doon volontaire ak cofeel buñ am ak pas-pas buñ am ci liñ nekk ngir taxawal li nga xam ne moom la leen yàlla yónnee. Ibnu Isxaaq net leen ni ka ñuy wax Amru bnu ko dafa dafa dafa doon ko dafa làgge woon amoon la lu ma mat ñeenti doom yoo xam ni ñoom mel nii gaynde ci ak njàmbaare xare yëpp mu di ko ànd ak yonent bi sama bi xare bu waxat ñëwee ñu wax seen bàyyi ne ko yow kat yàlla gàntal na dañoo bëgg nga toog te ñu dem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 kon ci ngëm gu dëgër googu ak walanteer googu ci la jullit yu jëkk ya gañee woon ci lañu taxawale woon lañ taxawal ci diiru ay fukki at doon sangi àdduna doon ñiy aar ak manduse di aar ak dëgg ci biir àdduna bépp jullit yi nag noonu lañ delloo Madina ànd ak seen naqar ak seen njàqare euh, loolu yi nag alxuraan wàcc di leen woyofalal naqar woowu di di leen puus ci ak muñ Eh, di leen xamal ni leen nit lu leen dal rek daloon na ñeneen wala tahinu wala tahzanu wa antum la'lawna in kuntum mu'minin leen bu leen doyee di bu leen jàq yéenay kawe yéenay gaje ci kanam waaye ci sartu bu fekkee gëm ngeen te nga bi dëgg ci yéen ni leen in yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun misluhu lu leen naqari rek lu ñu toll daloon na ñee ñee ngeen di xeexal bu njëkk ci Badar wa tilka al ayyaamu nudaawiluhaa bayna annaas wa liya'lama allaahu alladiina aamanu wa yattaxida minkum la wallaahu laa yuhibbu zaalimiin te mooy bu leen doyee di mukk ci jihaad bu leen jàq ngir li leen dal ci ngañaay liñ leen bu leen jàq ngir li li ñu ray mbooloo ci yéen ndax yéen la yàlla àndal ci sababu ngëm gi ngeen gëm bu ngeen gëmee rek yéen a féete kaw te de ca kanam di kanam it a koy moom bu fekkee am ngeen aw naqara ko jam-jamit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 لمن دل دلون الصحابة يننت يلن جتون وكأي من نبي إن قتل معه أم يجان قاتل معه ربيون كثير فما وهم لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان حولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الخبر الكافرين وني لين دلدل من أي نتمي عنك أي ننت وآيات تقول دنيو صخ dëgër ni yàlla yàlla na nga ñu jéggal suñuy bakkaar na xam ne ni li ñu dal ci suñuy bakkaar la bàyyi ko waaye noonu yonente bi bi mu ñëwee Madina mu dégg jullit yi di jooy ñii di yooxu moom ci jëmee boppam yërmaane dal koy jàpp ay bëtam dal di sotti ay rankoñ waaye ginnaaw bi mu tere nag yëkkat moom dafa doon lu yàlla bañ sotti rankoñ nag cëpp xol lay bàyyi ko loolu nit ki moom ko ba di ko tee waaye naafeq yahudi occasion ci lolu ak tàmbali di yak lañ mëna yak lepp ndax nah. nah, am nañu ne bu doon ab yonent lii ko dal du ko dal bu doon ab yonent kenn du ko gagne yahudi lolu lañ doon wax bu doon ab yonent di su ko gagne te kon li ñu ko li ko dal du ko dal ci yi wax lu demee noni am ci ño xamni dañuy wax julli ni leen bu ñu toppoon li leen dal du leen dal waxon ngeen ni leen ñu dëpp ñu di def def lepp ay baati yak yoo xamni yéef naafeq yi ak yahood yi dañ doon occasion di ko yàq ginnaaw bu xare bu xat jàlle la alquran di wax ni yaa ayuha alladina amanu laa takunu kalladina kafaru wa qaalu li ixwanihim ida ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ñu leen bu leen mel mukk ni ñoo ñi nga xam dañuy wax seen i morom naan leen bu ngeen fi bu ngeen toogoon fii li leen dal du leen dal du ngeen dee te kenn du leen rey mu ne julli di bu leen bu leen yor jikko jooju la yàlla wàccee aaya di wax ak yahud yi ak naafeq yi di leen xamal ne leen dee ci boppam moo ko nattale ci ay waxtu yoo xam ne bu agsee du jiitu ta du yeex mooy wa maa kaana li nafsin an tamuuta illa bi isnillahi kitaaban muajjala bakkan du dee mukk te du ci ndigalu yàlla la mooy mbir moo xam ne dañ ko bind